wolof mooy wax ni mbott yi tëb nawet yépp ku leen tàccu sa tool booy mel ni ñiy sos ak ñiy fen ak ñiy tuumaan ak ñiy tappaleek ñiy cokkaas ñépp genre mbott yooyu di tëb nawet rekk lañu waaw kon nag ku bañ sa tool booy doo leen tàccu dëgg la wala déet